ba léegi.
yàlla bi ko caafina ba léegi.
moom moo warlu.
moom moo warlu.
di tarbiye jaamam yi.
di tarbiya jaamam yi.
di leen jubal ñu dellu ci moom.
di leen jubal ñu dellu ci moom.
moo tax mu yónni yonent yi mu yónni yëpp.
moo tax mu yónni mboolem yónent yi mu yónni.
dale ci Adama ba ci yonent yàlla Muhammad sallallahu dalee ci Aadama ba ci yónent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
ak nu bootu jeex.
ak ñu boole su dal di jeex.
mu des nag.
mu def nag ñu doon yonent yi.
ñu dellu yónent yi.
yonent lu ne sallallahu alayhi wa sallam.
yónent wax na ne sallallahu alayhi wa sallam.
malamaa yi ñoo doon yonent yi.
borom xam-xam yi ñoo dellu yónent yi.
du ci askan du ci deret.
dawul ci askan nag. mbanaa bi du deret.
du ci juddu du ci dara.
dawul ci juddu dawul ci dara.
faggut ya fa koy maye.
fagguteef rek moo koy maye.
juddu du ko maye.
juddu du ko maye.
maqaama ci lislaam faggoo koy maye.
maqaama ci lislaam faggoo koy maye.
juddu du ko maye.
juddu du ko maye.
su fekkoon juddu rek la.
su fekkoon ne juddu rek la.
ba léegi mbir maa ngi ci loxol sëriñ yi ci harama yi sëriñ.
ba léegi kon mbir maa nga ca la way sirif ya nekk ca xaram.
wala sax sëriñ yi nekk fii.
wala sax sirif yi nekk fii.
waaye ci faggu la.
waaye yëf yi nag ci faggu la nag.
yonent dafa wax ne.
yónnent dafa leer ne.
ñun mboolem yonent yi duñ ñu doon.
ñun mboolem yónnent yi du ñu doon.
nga xam ne dàq na ban doon ci juddu.
nga xam ne kon. loolu fi yónnent bi woote sallallahu alayhi wa sallam.
mu ne ko wax nga rek.
mu ne ko wax nga dëgg.
maa ngi fàttali ko am na ku ko fekkee ci jotaay bi.
mu ne ñu ngi fàttaliku am na ku ko fekkee am ci jotaay bi.
dañ demee taay rek.
bañ demee Kaayira yàlla xiir ma ci jumaa ma julli ji ci jàmm la rek.
yàlla xiir baay yi ci jumaa mu dem jaañoo la fër julli ji jë.
maa ngi ci toog rek.
bi bàyyi àggee rek dal di toog.
Aliouma ñu ñëw ne ma yaay jiite kat.
limaam bi dal di ñëw rek jox baay bokk bi ne ko yaay jiite.
ma ne teg.
baay dal na teg ma soo parewut pour xutba gi.
mu ne baay su fekkee da ngaa parewut pour xutba gi ma bàyyi la ba beneen àjjuma.
ma jéggal la bon ba beneen àjjuma.
ma ne ko baax na ba nooy léegi.
baay nag ne ko baax na ma yëg léegi.
xanaa xutba leen jiite leen.
baay dal leen di xutba ci Kaayira jiite leen fa.
ma sàmmalee mu jóg di dara xutba gi ma xutba.
bi bàyyi salmalee ilimaan ji jóg na xutba ji bàyyi xutba woon mu di ko saraa di ko fekkil nit ñi
ñett ñu ne ca li ma wax léegi.
ñett yi na jotat lii leen bàyyi wax léegi
boobu buuru jullit bi laaj.
boobu buuru jullit bi laaj réew mu nekk fay jógit ci lislaam.
réew mu nekk fay njiit ci lislaam mu ne ko nit ki ñëw la.
ñu ne ko nit ku ñuul la mu ne. mu ne lislaam.
mu ne diine lislaam ñu jiit ci ci xam-xam ak jub rek la aju.
njiit bi mi nga xam ne ci njub ak xam-xam bu koy tëj ku gën a xam rek kookaay du sant.
ku gën a xam mooy sang bi rek mais fii ñu ngi fi ñëw mel ni gan la.
mu dal la waa misra fii ñu jiite tey mi ngi fi ñëw mel nga gan la ci ñun waaye ndokk bi nga xamee ne ñun bu ñu tuddee rek nangu nañu ko jiite.
waaye nag ndox ñun bi nga xamee ne moo ñu sut amuñ ci benn kalam ñu nangu koo jiital la Fodé Dia waxoon bi sàllum naa Abdul Malik.
la foo da waxoon islam ibnu abdul malik mu ne waaye lu gàtt gàtt fàttali nañu lu nekk.
mu ne waaye nag lu mu gàtt gàtt fàttali nañu lu nekk mais fàttali nañu ni ñu jàngal alxuraan.
fàttali nañu ni ñuy jàng alquran fàttali nañu fasaa ji wax yaaram.
fàttali nañu fasa ci wax yaram ak yeneen jikko.
ak yeneen jikko nag
ba jaamu la far fan foofu tey.
ba jaanula la sar sankoo ba tey doom bi ci dëkk Misra jàngee ci jaamu la far rek ne mu ngi jiite.
doom bu dëkk misra jàngal ci jaamiyoo lëfër moo fi jiite lu mooy nag bés li fi bàyyi ñuy jiite loolu ma leen di wax ne loolu leen bàyyi di wax ne
lislaam lislaam dana ci dana ci aju ci juddu bi laaj.
xaaju ci juddu mi nga xaaju ci xam-xam rek
ah ca Xurasaanam ca Xurasaana danaa leen faral di nekk li li fa xewoon.
dina leen faral di natt li fa xewoon
dafa amoon sërif dafa amoon sëriñ bu bokk ci sëti yonent bi.
bu bokk ci sëti yonent bi jege Faatimatu lool.
jege Faatimatu lool
den rek dem nag nenn mbayal la moo xam ne.
benn mbaay yàlla boo xam ne ab jaam la woon ci cosaan.
ak jaam la am ci cosaan dafa ñuul ba ay tuñam ñuul.
jaam bi dafa ñuul ba tunañu ñuul
mu di jaamu katab yàlla.
mooy jaamu ko sa yàlla nag da sangam ñemeetu ko def jàmm ba ko yàlla ba sangam bi ñëweetu ko def jaam mu mayal la ko
mu dem da nekk sëriñ bu rëy mu dem nag moom mayal la boobu ba nekk sëriñ bu rëy addina yëpp topp ko addina dëpp mujj topp ko
benn sëriñ fa ngi dëkk ak moom benn sëriñ fa nga dëkkal moom naan sangara mooy yàlla rek la gën naan sangara ma yàlla rek mooy liggéeyam jëmmi bés jëmmi bés nag sëriñ boobu génn sëriñ boobu génn
mbooloo mi topp ko mbooloo mi topp ko rek rek rek rek di barke li ci moom rëg rëg rëg rëg ci barkeelu ci moom sëriñ bi naan sangara ba mandi moom it jëm si ci moom sëriñ bi naan sangara ba man di jëm si ci moom mbooloo ma di ko pamax mbooloo mi di ko paral di ko fet di ko pes moom it mu ne mboolu muy fépp rek jëm si ci moom foog maa si ci moom fokk moo si ci moom maa si ci sëriñ bi damaa see ci sëriñ bi ne ko yow doomi xeefar sa bàyyi xeefar sa maam xeefar ne ko yow doomi yéefar sa baay yéefar sa maam yéefar ñuul ñuul sax am suñ ñuul ñuul saxam suñ ñu di la màggal man ñu di ma toroxal ñu di la màggal yow mii man ñu di ma toroxal man may doomu yonent yàlla yow ngay doomi xeefar man may doomi yéen si yàlla yow ngay doomi yéefar loolu war na am dafa nga ne loolu war na am
sëriñ ba ne ko sëriñ bi ne ko
doomu xeefar laa ni nga wax doomi yéefar laa de ni nga waxee dama ñuulit ba sama suñ ñëw damaa ñuul fukk ba su may kii ñuul waane weexal naa sama xol ci gëm yàlla waaye nag su la xol weexal naa ko ci gëm yàlla gëm gu wét gëm gu wépp ba sama weexaayu xol boobu ba su ma weexaayu xol boobu moo fés ci sama lex bu ñuul bi moo fes na fànn ci suma lef bu ñuul bi da tax nit ñi topp ba tax nit ñi di ma sopp
ñi yow mu ne ko yow nag da nga weex dangaa weex naam waaye da nga ñuulal sa xol waaye dangaa ñuulal sa xol bi kukk te ñuulaayu xol bi sa ñuulaayu xol boobu nga def nag moo fés ci sa lex bu weex bi moo fes ci sa lef bu weex bi kenn bëggatu laa ji ba kenn bëggatu laa jóg man doomu xeefar laa man doomu yëfar laa wàcc naa sama yoonu bàyyi waaye wëcc naa suma yoonu bàyyi topp sa yoonu bàyyi ci sopp na yow sa yoonu bàyyi ci yonent bi yow
yow yonent la jur naam nga wàcc sa yoonu bàyyi nga wëcc nag yoonu sa bàyyi toppi sama yoonu bàyyi topp ci suma yoonu bàyyi bi ma nit ñi gisee ci sa yoonu bàyyi bi ma nit ñi gisee nag sa yoonu bàyyi ñu def ma ni doomam ñu def na nag li ñuy def sa doomi bàyyi moo tax ñu di ma teral looloo tax ñu di ma teral te duñ ma tarafal bañ nga gisee yow ci sama loolu yoonu bàyyi nag bañ la gisee ci sama yoonu bàyyi ñu def la ne yaay seen doom ñu defal ndax ne yaay doomu sama bàyyi ji rek di la def nañ sa war a def moo tax ñu di la torox looloo tax ñu di ma tarafal di ma teral yar yi ñu la dóor ak fes yi ñu la fes ak yi ñu la door ak sas yi nga doon sas yëpp nga agseegut ci man di nga seegut ci man baal naa ñu ko def baal naa la ñu ko def ndax yaa ngi naan sàngara waroon naa la gisal ndax yaa ngi naan sangara waroon naa la ci gisal sa ñàkk teg yi lii tam sa ñàkk teggin gi itam baal naa la ko ngir sa maam baal naa la ko ngir sa maam demal demal sa yoon nag lii la ñuy doon yeneen noonu moom la ñuy demee yeneen du ci juddu du ci deret dowul ci juddu duñ ko demee ci dara du ci askan du ci melo du ci dowul ci waskan du ci melo
du ci dara du ci dara nag yeneen ko xaritu yàlla la yéen ci xaritam yàlla la xaritu yàlla dara bokkale yàlla dara jaamu yàlla bu mu gërëm la rek jaanab yàlla bu mu gërëm rek la xaritu yàlla la xaritam yàlla la faaw ci yoonam waxee ci yoonam rek daal di nekk xaritu yàlla dal di nekk xaritam yàlla ku mu jut képp ku mu jur taawuloo ci yoonam waxawuloo ci yoonam jotewu laa moom dara jotewoo moom dara loolu la yonent bi wax loolu la yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam
kon kon
bàyyi bu baax baay bu baax soo awee ci yoonam boo awee ci yoonam
kooku day fondement bu dëgër la loolu day fondement bu dëgër la teg ci fondement tabax moo gën a yomb teg ci fondement boo fekk tabax moo gën a yomb loolu rek la bàyyi bu baax di jëriñ loolu rek kat la baay bu baax di jëriñ yoon moom la xale loolu nga aw ci rek yoon ñun la xàllal nga màgg xam ci rek fondement bi mu tere loolu nga tabax teg ci fondement bi la tëralal nga tabax teg ci dana gaaw a gudd xam nga ne kontoon bi dina gaaw a gudd waaye moom a jur rek nga doyloo ko waaye mooma jur rek jaaxal loolu doy wacc yoonam wàccee yoonam jotewu laa moom dara yow jotewoo moom dara
li ciy saayit li ciy sayir maanaam li ciy seede maanaam li ciy seede
yonent yàlla Ibrahim yoon ci yàlla Ibrahim moo jur yow def nasaraan moo jub yahud yi ak nasaraan yi kenn mën da baax baay kenn mën nga baax baay moo da sa baay mel ni Ibrahim ba sa baay mel ni yoon ci yàlla Ibrahim waaye mbaa xam nga du jëriñ dara yow def nasaraan waaye mbaaxam googu li muy rëy rëy nasaraan ak yahud duñ ci jëriñoo dara
moo jur yonent yàlla moo di dem ak akam toppam moo julli na ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo kam toppam moo leen tuddee jullit moo leen tuddee jullit nanay ku gën a rey ci Ibrahim na la ci gën a xel ci Ibrahim ci àddina ci àddina
mooy ñu topp yoonam mooy ña topp yoonam ak yonent yàlla Muhammad mi sallallahu alayhi wa ak yonent yàlla Muhammad lii sallallahu alayhi wa sallam sallam kon Ibrahima jur yow rek nasaraan waaye ñun ñoo leen ci gën a rey te duñ waxee fekk na faral di may may leen jur waaye terewul ñoo leen ci gën a xel ndax ñun ñoo topp yoonam ndax ñun ñoo topp yoonam beneen baay bu baax it beneen baay bu baax it ku topp yoonam loo ko sori sori ku topp yoonam loo ko sori sori yaa gën a rey ci moom doom jëm judd topp yaa gën a xel ci moom doon dem jur te topp ci moom
doomu aadama nag dama dama nag dafa fooral affaire yi njudeen trop dafa fooral lool affaire njureel
yàlla wax na ne yàlla wax na ne nañ sant yàlla bi nga xamee ne moom yàlla amul doom nañ sant yàlla ci bi nga xamee ne yàlla xamul doom su yàlla amoon doom xam ngeen ne bu yàlla xamoon doom kon musiba am kon day musiba mu rëy xam doomi yonent yi doomi yonent yi doomi wali yi doomi wàlli yi li ñu yàq ci diine ji liñ yàq ci diine ji te ñu dee xormaal rek ngir seen juddu jil jili ñi deen xormaal rek ngir seen juddu su yàlla amoon doom fu ñu jëm su yàlla xamoon doom kon fuñ jëm alhamdulilah bi yàlla amul doom alhamdulilah bi yàlla xamul doom alhamdulilah bi nga xamee ne yonent konte wul doom mi ngi konte rek foto alhamdulilah bi nga xamee ne yonent bi compté wul doom mën a compté rek ñu ko toppatoo ci yoonam yal nañu yàlla boole ci ñu ko topp yàlla ñu yàlla boole dañu ko topp yaa rabbi
ñooñu rek ñoo di doom ñooñu rek ñooy doom képp ku topp yoonam moo la jur képp ku topp yoonam moo la jur ku wàcc yoonam bu la juree jotewut ak yow dara ku wàcc yoonam bu la juree jëtew da yow dara ñu gën a taxaadi ci jamonoom ñi gën a texeyaadi ci jamonoom li alxuraan wàcc ci ñoom da alquran wàcc ci ñoom kan la alxuraan wàcc di ko xas kan la alquran wàcc di ko xas ñu di ko jàng ba fa dina yem ñii di ko jàng xas woowale ba faa dineem Abu Lahab Abu Lahab xam ngeen kuy Abu Lahab xam ngeen fi Abu Lahabam moom Abdoulaye mi jur yonent ñoo bokk ndey ak baay moo Abdoulaye bi jur yonent bi kat sallallahu alayhi wa sallam ñoo bokk ndey ak bàyyi tax na ba alxuraan tax na ba alquran sirru yi noseem alxuraan ci sirru yi nasab alquran saar ya foofa yëpp xul lañ ko tàmbalee saar ya foofa yëpp pour lañ ko tàmbalee qul wallahu ahadun qul a'udhu bi rabbil falaq قل والله احد قل اعوذ برب الفلق qul a'udhu bi rabbin naas قل اعوذ برب الناس waaye kenn du wax qul tabbat yadaa abi ويسكن قل سبب يدا ابي لهب xam ngeen lu tax كم لم تهم
lam bon bon bon لم يبن بن نفكت bàyyi la ci yonent bi بايلة النبي صلى الله عليه وسلم yàlla am na kersa ji di wax yonent na ko waxal ne sa bàyyi saaga
يلا نك رسلك يا من تبي تقول أهلا فوزها سبعي بي أنصاره moo tax yàlla waxal ko moom لولا موتر يلا سنتك يا من تبي موتر خلق السمرة moo tax tabbat yadaa amul xul موتر سبب يدا أمس كله
yàlla ku ko nekkal mu nekkal la يلا كفنا كلمة نكلا yonent bu ko topp moo la jur يلا تكفى تفهم ولا جرس الله عليه وسلم wàcc yoonam jote la yow dara wàcc yoonam ci tiwu yow dara lii mooy li nga xam ne mooy dëgg ci suñ diina lii moo di li nga xam ne moo di dëgg ci suñ diine ñun nañu wéral nañu yëdal suñ gëm yàlla suñ gëm yàlla nañ ko yaakalaat guddi gi jotaay bi ci guddi gi ci jotaay bii ñun ñëpp ñu waxaat ne ñun ñëpp ñu waxaat ne
la union créée des langues du la di ko